di ziar. non man du indi si làmb bopp mbaam ma koy lekk di ko indi di ko. diri si su ko defatee ñu xeex. na xamul lu muy diri. billaay mi diri lu ñaaw lu rafet. lu neex. billaay. keroog maa ngi seen liis di ci fis fees benn bu li ma la wax. mbaam daa ñaaw neex. billaay. mais Zarko day tooñ su ko indee. billaay bu xajee ne léegi su ko indee yàq na supp ma indi bopp nag tamit yàqal ko mu it. non bopp nag boo xajamee tamit day neex. sama néew bu ma tooñ bu ma ko tooñ. waaw bu ma tooñ. bu ma ko tooñ moom kay na day ñëw bopp bi da koy indi. su ko indee ñu xeex du bëre. te du maa xëy njëkk a bëre na ko indi xool. bu ko indee du du fooy ma loolu quoi. kon da leen tooñ nii. daf maa tooñ. fooy ma loolu. xanaa wax nag waa laa koy. kalaat bu pare li muy diri daa xamul neexaay bi moo tax mu koy diri. sama new si. billaay mais mi ngi yàq lu neex sax lu am solo. laay <laughs> sa da bu ko da diri sa fit bi di naan rëf. xam nga damaa tiit ba ba lu ne laa koy def. billaay mais day tooñ ko waa loolu baaxul lu may def noonu àq la. mu ngi may tooñ bu baax a baax te nag su ma ko baalul du a arrangé ne naa leer nag.